Bassouma Mombare, le Sénégal la jeunesse cette jeunesse combattante cette jeunesse dévouée tant que son corps ne sort pas ce n'est pas l'heure d'être content mais voilà une jeunesse qui peut dire et contenir un État mythomane et démagogue la jeunesse sénégalaise, merci beaucoup et restons debout. Pour aller plus vif dans le sujet, le Sénégal vient de recevoir son premier lance-missile. Donc le Sénégal va aller en guerre. Ça, c'est pas grave. On avance sur ça. Le problème d'aujourd'hui, ça ne concerne que M. Ousmane Sonko, chers Africains, peuple africains... Là où ils ont mis Ousmane Sonko en prison, c'était sur un projet bien ficelé appelé l'opération Russia, dont le nom de Ousmane Sonko était Skripal. Le nom d'Ousmane Sonko dans ce projet-là, on l'a surnommé Skripal. Beaucoup d'autorités de la gendarmerie, c'est moi-même qui les ai donné le nom-là, mais ils, voient voyaient toujours le nom de cette code, mais ils n'ont jamais décodé ça. Chaque jour, je parle sur code et sur connaissance de cause. Les enquêtes que les Sénégalais ont menées, envoyées à la CPI, c'est ces mêmes enquêtes qu'il y a eu des gens qui ont filtré que le ministre de la Justice ainsi que le ministre de l'Intérieur ont pris pour mettre sur le dos de Ousmane Sonko. Mais ça, ce n'est pas le problème. Non, ce n'est pas l'emprisonnement. Moussa Fall, Moussa Fall Marem Faisal, ils ont décidé de faire de Ousmane Sonko un monument comme Thomas Sankara. Souvenez-vous de mes lives, je vous l'avais dit. Le jour où on avait tenu cette réunion et on a dit que Sonko, on le fait comme un monument. Ce jour-là, qu'est-ce que je vous ai dit dans mes lives J'ai crié, oh, préparez-vous, préparez-vous, ils peuvent le tuer. Pourtant, beaucoup ne me croyaient pas. Maintenant, les moments sont là de ce venu. Sonko sera-t-il patrimoine ou président Ça ne dépend que de nous, ça ne dépend que de vous, ça ne dépend que de cette jeunesse. Ça ne dépend que de notre détermination et de notre dévouement. Sonko patrimoine ou président, Sonko président, c'est mieux pour la sous-région, je pense. C'est mieux pour la stabilité de la sous-région. Là, la France est complice jusqu'au cou. Les manifestations qu'on avait déposées pour le jeudi vendredi, Torcadero, maintenant toutes les manifestations sont interdites en France. Devant le consulat ou devant l'ambassade, c'est interdit. Le préfet de police de Paris ne l'accepte plus. Donc, <laughs> ça commence à prendre de l'ampleur. Donc cette guerre-là, c'est la France qui est derrière Macky. L'emprisonnement d'Ousmane Sonko, c'est la France. Tout ce qui se passe actuellement, c'est la France. Pourtant, c'est la France qui envoie ses émissaires. Mais ces émissaires, ce que ce qu'ils veulent, ce que Sonko pense, c'est ce que pensent nos vaillants militaires qui ont pris la sous-région pour stabiliser la sous-région et non déstabiliser la sous-région. Et le problème, et le problème de Macky Sall avant qu'il quitte le pouvoir, c'est Assimi Goïta, mais ce n'est pas Tchami. Des vérités vont sortir aujourd'hui. Le problème de Macky Sall, c'est Assimi Goïta, mais pas Tchami. Ce n'est pas le Niger qui l'intéresse. Armée malienne, les codes, militaires, les codes militaires, vous les connaissez mieux que moi. Code Ceux qui sont là-bas, vous savez comment ils doivent rentrer. Ceux qui sont là-bas, ils doivent sortir dans six mois. Non, ces six mois-là, c'était le piège. Pourtant, ce jour-là, je vous avais averti pour vous dire qu'ils n'ont qu'à sortir le plus vite possible. Parce que c'est avec ces mêmes militaires de l'amunissement qu'ils vont se servir pour attaquer le Mali et le Burkina. Africains, africaines, détrompez-vous. Le problème, ce n'est pas le Niger. Le Niger, c'est la France qui règle ça. Mais les multinationales et le système, leur problème c'est Assimi Goïta parce qu'ils commencent à poser des ailes. Le problème c'est capitaine Ibrahim Traoré qui a déjoué toutes les pronostics. Demain, vous peuple africain, vous peuple malien, vous peuple guinéen, vous les panafricains, vous qui nous supportez, on vous demande solennellement de manifester pour la libération de Ousmane Sonko chez vous. Les Sénégalais qui sont là-bas, d'aller dans les consulats, devant les consulats de manifester pour le vendredi de la liberté. Vous, peuple, euh, peuple africain, nous ne sommes pas avec Macky Sall. Cette guerre-là, ça ne nous regarde pas. Malgré que ça va créer des choses qui vont déborder, mais nous, notre souci, notre problème, c'est de dégager ces vassals français-là. Et c'est possible à travers nous tous réunis. Maliens, ne regardez pas ce qui nous gouverne. Ils ne sont pas avec nous. Pourtant, ils sont noirs comme nous. Mais nous ne sommes pas du même peuple. On vous demande solennellement à toute l'Afrique de sortir manifester pour la libération de Ousmane Sonko. Pour vous les Dakarois. un Khalak Dakar, nous devons sur le sujet. les États-Unis. C'est Ce message. am bu fekkee yaa ngi bi xam nga xam parce que tay suba grand Ibou Fall woo na ñëpp ne leen suba nañu fexé ba suba aljuma bi ñu fexé ba réunir jeunesse bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp Dakar dans la capitale ñu def ko vendredi de la liberté grand Ibou Fall ni la ko waxé Ngagne Demba Touré ñi ma woo pour ñu jappalé Ousmane Sonko yow do nga wuyu ba mustapha Sy woowoon naa ko dem leen samay live laaj lepp dam ko don codé pour xam kan mo mun supporter Ousmane Sonko kod kod kod puzzle bi mo mujjé lal puzzle bi magi ñi soxor ñi nek ci passé fi bañon tay puzzle bobu tay mo fi représenter Ousmane Sonko muy booy Ngagne Demba Touré luma len waxon bu ko kenn piis bu ko kenn piis ba tay loolu lay wax voilà un homme mooy Ngagne Demba Touré te lim len wax sank dégg ngeen ko passé amul fuñu jaarul kon kenn mënu ko tass Pastef amul fu ñu jaaru kenn mënu ko tas Macky bu leen ne da koy tas da fen dafay fen ndayam day fen baayam day fen problème bi nag mooy Moussa Fall Moustapha Diakhaté ñoom ñëpp pare nañ l'opération Russia mat na Macky Sall a décidé que l'opération Russia doit prendre fin donc Skripal est l'avatar Skripal c'est Ousmane Sonko ñoom yéen garde pénitentiaire yéen laay waxal yéen garde pénitentiaire yéen laay waxal manifestation bu mu am ba gendarmerie ñëw jël si Ousmane Sonko foofu ne da koy yóbbu Cap Manuel pour ñoom ñooy surveiller état de santé bi nee nañu wóoluñu Ousmane Sonko naan garab ndax bu deewee seen loxo dañ naan ñoom ñoo ko rey te billahi Moussa Fall a décidé d'éliminer Ousmane Sonko sur l'opération Russia et ça sera fait ndax opération bi du tey la ñu réunion affaire bi du tey du tey soo leen ma weddee seen mbokk yi nekk gendarmerie n'est si dans les secrets nee leen nañu tapons OP Skripal rek bu ñu bindee S K R I S P A L Ousmane Sonko lañ fa bind Skripal moom lañ fa def noonu opération bi Russie la suba nag boo leen convergé wul yéen vers la capitale France Une CRS yi génn ñu yónnee yeneen CRS ñu ñëw yóbbu leen état de siège pour mën a attaquer Mali wala Niger xeex te Sénégal day xeex ndax Macky Sall mu ngi recevoir nañ suñu premier avion. buy sanni missile sank la yex ci Sénégal duggu ci senegal Sénégal mu ngi non aéroport leopold Sédar non la wacc té xex bi ñun africain ñoko wara bañ ñun nit ku ñul ñoko wara bañ duñu xexati ndax ay tubaab waratuñu dal ci aduna duñu xexati ndax ay français mënatuñu dal c'est impossible on doit plus se battre pour la France on va plus se battre pour la France papa yi yaay bo len dof dof lo ba Pastef nek idéologie nga ñak lu Pas Pastef du philosophie du idéologie c'est une réalité où est l'idéologie de Patrick Lumumba il est elle est où où est l'idéologie de Thomas Sankara jusqu'à considérer des Sankaris où est l'idéologie de Thomas Sankara où est l'idéologie de Modibo Keïta où est l'idéologie de Kourouma Où sont le... Non, non, non. Parce que le système a broyé cette, idéologie. Le système a tout broyé. Maintenant, avec Ousmane Sonko là, si on fait le fou, passif sera une idéologie. Comme les journalistes, comme la presse hypocrite et démagogue veulent vous l'imposer. Passif n'est pas une idéologie dépassez-moi ça Pastef tout ay këyit 2014 passif idéologie jusqu'en jusqu'à 2017 là Pastef c'était une idéologie élection 2019 c'est le passif dogonek, philosophie mais à partir de 2021 c'est le Pastef n'est une réalité moo tax tey li leen dal nii dal leen te li leen dal nii je kanam borom moo koy fajal ñoom nag bëggoon dugg ci xeex bi ngental Ousmane Sonko moo tax opération bi ñu accéléré ko te nag dëgg neex yàlla ñun foog ñu libéré Ousmane Sonko wala ñoom ñu faxas Ousmane Sonko ndax kenn mënta tere Ousmane Sonko nekk candidat même bu nekkee instruction ni ci biir six mois bi kenn mënu ko éliminer de sa candidature Moustapha Diakhaté loolu lay rawanteeg ñun moo tax ma leen rendi leen ko. am ko mo wo sank nan mo no Moustapha jaxata ni mama xex buñ ci nekké man gor la Sonko du ma gën a France nañ ma ko def fiches man France nañ ma def fichés je ma balé kuy couilles jaxata il est à exécuter parce qu'il a demandé au président de la République d'éliminer le maximum de jeunes pour que buñu éliminer Ousmane Sonko yeen ñep ngeen tej nday sen lamine ñi Ousmane Moustapha Diakhaté ku ko rendi on te donne 500 millions moitié milliard ñoom dañuy dóor loolu maa koy génne teg la table jaral ma nekk nday franc-maçon jox la xaalis boobu. ku ren ni nday Moustapha Diakhaté je te paie cash ma maa nga baal ma nag man je comme ça xeex dam koy assumer ba kanamu procureur laaj ma Aliou Ndao man danga may condamné 15 jours ma saaga sa nday nga ma koy dóor ba mu jëm 6 mois dérangé wu ma. pénitencier ma ci mujjee jàppale yooyu yëpp ça ma me dérange pas je suis comme ça c'est ma xaw ma dellu ginnaaw c'est ma nature mënu ma ci dara léegi nag yen laa jëne suba fexe leen ba guddi gi fexe leen ba guddi gi ñun suñu équipe yi def nañu job bépp suba xeex bi commencement ñu fépp tàkkaat biir Dakar moom suba ñoom ñëpp ñu ngi fa taxaw dinañ tëj RTS ak dinañ tëj fépp li laay war a suivre gars yi militaires yi nekk ñu fi pour tirer seen kaw encore une fois mais yéen militaires yi Casamance gars yi nax nañ leen gars yi nax nañ leen tiire ngeen ay rafal en leer gars yi dóor suñu boyi ay bal ñoom ñoo leen nax démb bi njoona metti woon na tellement que armée dajale ngeen colonne Il y a eu quatre morts de côté du côté de l'armée sénégalaise hier quatre morts Confirmé. parce que je suis un supérieur militaire confirmé et beaucoup de blessés j'ai déjà vérifié mais j'ai eu l'information depuis hier Il y a eu quatre morts du côté de l'armée Confirmé. la police nationale été retiré Il y a eu des blessés mais nous avons une bloqué information la jeunesse xeex bi toll na foo xam ne li ma leen waxoon rek bu yàq jotee bu la kenn ëppale lu muy yàq bu la kenn ëpp fu la si lu muy yàq ndax gis nga bu ñu jëlul pale bi bu ñu jëlul pale bii xiif bu metti dinañu dal ñu bëri daanañu dee yéen ñu bari di ngeen doon ay réfugié loo leen mosul dund Sénégal 40 ans mënul jël Casamance Mali xajul ci Sénégal Mauritanie xajul ci Sénégal Macky Sall bi yi guerre gerloo Côte d'Ivoire ba tas ko andiwaat fa Dooméram pour mu jiite ko muy Alsan Water ñun ñu bëgg tasaat Sénégal maman c'est autour du Sénégal li sont c'est des programmes encore une fois c'est des programmes qu'ils ont organisés et Macky Sall va s'engager en guerre par force pour se maintenir au, pouvoir lolu c'est obligé maman c'est déjà écrit mënutuñ si dara xam nga luñ ci mëna a militaire militaires yi ndaw yi lay waxal waxatuma ñom colonel Cissé yi góor jigéen xaramata ndjay nek double nationalité waxuma ak ñom waxuma ak ñom Abdou Meng mi nga xamné mom c'est un subordonné il a toujours été subordonné mo kee mo yam kanji c'est des subordonnés ñom dañu mos li pour avancer ni lañu mel je ne parle pas à eux les jeunes gradés qui avaient l'âge du capitaine Traoré 34 ans il y a combien de gradés qui ont l'âge du capitaine Traoré est-ce que capitaine Traoré a été plus formé que vous pour gérer un État Non. Vous savez très bien de quoi je parle. ce n'est pas la peine de développer, mais prenez vos responsabilités. Ce n'est pas parce que tu as 30 ans que tu ne peux pas gérer un pays. C'est archi faux actuellement. Nous avons 60 ans, 70 ans, nous que Sénégal, non de avons

sama page mais ñu bëri maa leen gis yaa ngi ni commentaire mais nekku leen ci code ya code ya bi ma leen ne prison pale comprendre leen woon kaso bi Sonko la neex pour lan nag Sonko ne woon na xeex bi gaaw moom nii la mun a xeexee buñ ko jàppee grève de la faim bul sonn du lekk tànk jëliwuñu ko génneeku ko la woon bu ñu signé Sonko il ne va pas manger tant que la jeunesse ne va pas aller délivrer Sonko tey yéen boo délivrer wul tey vendredi suba Ngagne Touré xam na wax délivrer wul là doit prendre fin avant que la CDAO aille aux Nations Unies pour mën autorisation ay frappe bir Niger ak bir Mali je vous avertis Moussa Fall Moustapha Diakhaté ils vont aller exfiltrer Ousmane Sonko même le groupe qui doit exfiltrer Ousmane Sonko c'est ce que tu mais opération Ousmane Sonko Skirpal, nous sommes dans jam prison prison, parce que tout le monde va aller manifester devant la prison les nag la jeunesse dof Doflo, Ousmane Sonko nek tabax comme Thomas Sankara ni. ñun ñëpp ñu nekkat ci système bi fasiyene toroxat fasiyene tumuranké wat fasiyene di ñaan suñu wajur toujours deug neex yalla man mi di wax ak yeen <laughs> njabot na lol me ko yor sama njabot ku du sama baye kan mo yor sama njabot kan est-ce que c'est normal yéen ngeen fa bu may saaga ndey naan kii moo yor njabootam kii moo yor sa baay sa baay moo leen yor eh ci laa bokk nii loolu laa leen di bañal di njaboot ba am ay sët di woo sa baay naan ko waay booy lekk ñu de waay waay temps yi di loyer bi nii la demee ndax xeex bi si si ci laa nekk dëgg neex yàlla est-ce que yéen war ngeen dund loolu te ngeen am pétrole ak gaz ak lépp yéen la jeunesse non booy bu leen ñàkk fayda ñun on a déjà raté ce qu'on a ce qu'on devait C'est nos parents qui nous gèrent jusqu'à présent. moo tax du ñu jël décision ku ci fippu say parents bàyyi Ça sa gàddaay tàng jëkk mais da nga koy assumer moo nous dal ni. ñun jaabambakaraa yàlla gi gis ngeen bàyyi jaabambakaraa yàlla gi du tey si man mais yéen lii lañ leen di bañal Boy, bu leen foog ne ñun duñu ay murit ay Baay Faal lañ mais dafa am lu ñu leen dawal on vous demande pas bu leen nek Baay Faal daa am lu ñu dawal lu dal la bañ mu dal leen tardé bi ñu tardé la ñuy bañ ngeen tardé dem ba am cinquante ans soixante ans amoo kër di yaakaar sa panelu bàyyi loolu la ñuy bañ mu dal leen. léegi maa ngi gis ay jeunes yoo xam 30 ans dañuy nekk chef d' loolu la ñu gëm ñun c' est ça qu' parce que dañu gëm loo ne eh mag mooy wax bu mag waxee yow waroo wax xale amul dëgg ñun Sénégal loolu la ñu mos a gëm mag xeer la yow xale nen nga. boo dalee toj bu mag bi dalee da ngay toj mais ñun loolu la ñu mos a gëm loo or oh, c' est archi faux France fii xale yu ñooy jël ay décision partout dans le monde mais capitaine Traoré il a combien capitaine Traoré bu ma bu teeloon carte dama koy jur aywa mais xool leen ko il a 34 ans tey man tey Sénégal man tey bu dem tey ba ma nekkoon tey Sénégal capitaine Traoré tey war a tey falu man da man sans ma voyager samay bët ubbeeku je ne vous le cache de dama naan xale du fi jiite daf may jaral jaay ko sama bakkan militaire yi dóor bal mais tey ak sama voyage moo ñëw France.

ba taal RTS bu ñu assuré bu dugg RTS ba taal ko bu ñu assuré ba génn foofu gore leen ba prison yi foog ngeen aider ñu yéen commissariat Médina yéen commissariat quatrième booy yi yéen ñi fa nekk yéen a ëpp nombre ñi fa nekk eh sañu ñu leen dóor bal gore leen booy affaire bi dee benn yoon la bésu dee ak bésu dund bokkul guerre la ñu nekk nekkatuñ ci maa ngi ci prison dañ may dóor bal dañ may xamee négatif jàpp ñu leen si yoon gore leen yeen ñi nek 100 mètres ni ngeen bëré non bu bal yi také lo leen bëri bëri ay 100 personnes moy dé yeen ñëp do leen dé crise salvadorienne lañ tollu nañ yaq lépp bu ñu paré défarat lépp sinon ñu duggal ñu ci guerre bo xamné ay missile ñoo ñu yaq lépp té putin xajul ci France bay xat si ñun fa lay waxé code suba nak manifestation yi vendredi yeen jeunesse bi code ya de drapeau France yu gudd taal mu tàkk jëppeet ku nekk defar sa drapeau Russie yore ko pour mën a nekk wan peuple burkinabé ne yéen la ñu àndal mën woon peuple nigérien ne yéen la ñu àndal ñoom ils ont été clairs de seen drapeau la ñu wane ak drapeau Russie ils ont été clairs fii laa doon waxee foog ñu tolloog suñu morom africain yi mayen ñiy jaay intellectuel non ki koy tëj ju doogul ku nekk di la woo di jaay intellectuel bu leen ma woowati di ma jaay affaire di état de droit nekkuñu ci loolu vous êtes méconnaissable de l'État Vous ngeen yàgg Europe l'état de droit je ne crois pas à l'état de droit grand Ibou Fall waxal ak ñii waay waxal ak là. code bi duguna na ngañ dem Touré rassemblement gars demain tout le monde à Dakar place de l'indépendance fexe ba yegg fa rassemblement à Dakar tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde no leen mën def pour converger vers la capitale def leen ko l'armée ne va pas tirer sur vous une partie de la gendarmerie ne va pas tirer sur vous. Il vous suffit juste d'être déterminant. Et le combat est gagné. L'essentiel, c'est que Macky Sall quitte le pouvoir. Nous, notre problème, Macky Sall quitte le pouvoir. Sonko soit libre chez lui. Il va dérouler son projet au calme, se reposer, aller à Ziguinchor, diriger sa mairie au calme. C'est de ça qu'on a besoin, vous, la France. Si vous faites le con, on vous a dégagé. RFI est fermé. Tout est fermé en Afrique de l'Ouest. Vos journalistes manipulateurs, menteurs, là, ils ne restent que chez nous. France, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Non, la mère, comme dit, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. France, réveillez-vous avant que ça ne soit trop tard. Réveillez-vous, s'il vous plaît, réveillez-vous. Ce n'est pas le peuple, mais c'est le système français qui commence à nous étouffer, qui commence à nous emmerder, s'il vous plaît. Réveillez-vous avant que ça ne soit trop tard. Macky Sall n'a qu'à libérer Ousmane Sonko et dégager du Sénégal pour qu'on puisse être au calme. Ce n'est pas Assimi Goïta qui déstabilise la sous-région, mais c'est la France. Le Niger ne sera pas deuxième libé. Jamais de la vie. La jeunesse, je suis au garde-vous. Rendez-vous. Nyop. Capitale. Il y a une jeunesse africaine. Rendez-vous. Niop, Devant les ambassades après la prière. Mali devant l'ambassade Sénégal, Burkina devant l'ambassade Sénégal. Tout ce qui est institution sénégalaise, rendez-vous là-bas. Peuple malien, là où ils sont installés, les militaires sénégalais, les militaires de la CEDEAO, allez dans leur base et manifestez. Dites-leur non que vous n'avez pas le droit de faire la guerre contre vos frères africains. Peuple malien, je vous lance ce message et je vous laisse ce travail-là, peuple malien. S'il vous plaît, allez manifester devant vos frères militaires qui sont des noirs comme vous pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans des dérives pour sauver la France ou l'intérêt de la France. Peuple malien, je vous lance un appel solennel. Je vis avec vous. C'est le gouvernement malien. Je vis avec vous. Donc je vous lance cet appel solennel. Si Allah Djabi, je vous lance cet appel solennel. Nari, peuple malien,